ci. waaw mais loolu wax naa leen ko nee naa leen Ousmane moom moom xam na lu ma ko wax te Ousmane xam na ni que man suma mooy mënu ma taxaw fii di wax c'est pas possible non mais parce que Ousmane sait ce que je lui ai dit je l'invite vraiment à revenir à de meilleurs sentiments moom la foofu rek laa mën a yem parce que lii yëpp ça ne va pas le rendre euh, comment dirais-je encore candidat ça ne lui garantit pas Non, ça, ça, ne lui garantit pas la candidature, parce que je, je, je, je, suis désolé. Je ne reconnais plus certains acteurs politiques. Là, on ne fait plus de politique. Hein. y a des gens qui sont dans les enfantillages. Parce que man, Man, je ne pense pas que j'ai gardé les vaches avec certaines personnes. On n'a pas joué au bien ensemble. Nous avons une petite carrière. Nous avons une petite carrière. Nous avons une petite carrière. Nous avons une petite carrière. sàcc ñambi suukar xam nañ seen bopp donc ceux avec lesquels j'ai grandi on se connaît donc ñu nga ñu nga xam ne ni ñoom mag man ak ñoom dañu dañu dox daje ci politique il faut seulement qu'on apprenne à se respecter parce que y a des choses ñun ruus nañu di ko wax ci ay nit wala di ko teg seen kaw der à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui ne ko ñëpp déggee noonu ku bëgg a jàmm am jàmm ku bëgg leneen am leneen nous n'avons peur de personne kenn feesu suñu bëri kenn kenn kenn kenn kenn mais nag respecté nag ñëpp parce que Sénégal moo ñu ñor.